Euh, association bi pour euh, invitation bi ñu def. bale ñuy bale jigéen ñaa ngi nii mënoon bale seen nek balay seen kër balay seen i dañ ko bàyyi dimanche tay dafa neexon nga tok tok sa kër tal sa café naan sa télé wala sa ordinateur di xossé émission yi rattrapé naan sa café tubaab bu sedd bu baax wéeru sa kër mais bàyyi nañ ko ñu ngi ni seen doom yi sax la leen indaale lool loolu lu yomb kon dañu xamni sénégalais am nañ volonté def Sénégal am nañ volonté def dara les autorités lañu xaar ñu ñëw yok yok yokk seen loxo mu na leen comprendre tay peut-être durée bi gàttoon na xamuñu wol mais instant bi ñëpp xam nañu dafa leer mu ngi ni nit ñi ñoo ëpp moyens yi dese baa ngi fii fees fi del da malgré tout nak mobiliser nañu mais des na kon nag na gaa yokk moyens vraiment pour liggéey bi gën a jëm kanam. alors asalaamaaleykum euh, maa ngi tudd Fatou Diong membre euh, Grow Green Natangué basé à l'ambassade des États-Unis boo xoolee tey li fi teew ci mbooloo macha allah ñu ñëw tey pour euh, sensibiliser nit yi ku ne xam na ne déchets marins yi dafa am impact sur l'environnement. c'est un environnement sain impact positivement sur l'état de santé des êtres humains Comme euh, moo il est primordial que chacun d'entre nous citoyens lambda euh, comme acteur politique nous avons euh, ku ci engagement pour sensibiliser Niti pour nous faire euh, président association bi mon modèle jël euh, engagement bi euh, bi mu ñëwé def tuuru terrain bi gis euh, ni plage bi mel parce que bo xolé plage bi ni mu mel jéggi na bari na déchets affaire yooyu nonu motax ñu jël engagement ñëw fi ci plage Ngor parce que ni ma la ko waxé rek déchets marins da fay am impact ci ki bi parce que tay li ni jëni buñ ko léké après ñun ñokay lékat donc donc fay am impact ci suñu ci suñu santé. ñi leen di wax rek ñuy utiliser 4R yi. Madame refuser réduire recycler que euh, réutiliser Nous sommes l'environnement, environnement parce que l'environnement, euh, c'est une affaire de tous euh, la plage appartient à chacun d'entre nous donc on espère que cette journée sera une prise de conscience pour tous les citoyens. ku environnement wax moyen ku environnement wax accessibilité tey jii ñu ngi nii ñu ñëw nañ fi donte nag ay moyens am na ci benn côté mais des na trop des na trop parce que bëggoon nañ bu ñu ñëwoon tey ji waxu mooy duñ ko wax ci bés bi waroon nañ ñun depuis ñu ngi liggéey ci ay semaines ay mois dañu waroon normalement ñun bu fekkoon lépp jaar nañu jaar yoon ñun war nañ toog deux jours noppalu ko wala trois jours noppalu ko doog a mën a song activité bi mais hier jusqu'à tard ci guddi gi ñu ngi daw di chercher gauche à droite yenn ajustement yi kon moyens des na quoi cest à que bañ a taqal moo gën su mënee nekk Si bu ñu tam ñu parce que fekk wax fa dinañ vraiment euh, bi équipe bi mu pour vraiment ñu ñu succès dans ci événement bi population bi moo ñun de proximité

li nak événement boo xam ne sax événement rek mais événement exemplaire la war doon pour tous les communes du Sénégal ñu jël ci exemple té ñun yamuñu fi duñu bàyyi ndax bëgg bi ñuy bëgg défar mo ëpp doole salté bi ñuy gis buñ ko bëggee rek dañ ko mën fi ñuy jëm mooy topp géej littoral bi Sénégal la ñu wër fep fu salté nek ñun am nañ bëgg-bëgg dem dindi ko te suñu bëgg-bëgg gëm nañ mo ëpp doole salté bi fa nek té buñu paré lañ fay bayyi ci xelu nit ñi lañ fay bayyi ci xalé yi image lañ fay bayyi je crois que muy ëpp doole sax jëf yi ñuy def moo tax ñun loolu lañ jiital maanaam impact ñun foofu lañ gën a euh, teg suñu loxo quoi waaw foofu lañ gën a teg suñu loxo maanaam fexe ba message bi ñuy bàyyi derrière l'activité c'est ça que nous comptons plus que même sur, sur l'activité. samay tànk moom euh, tànku d'abord tànku mbégte la d'abord am kontante ñëw pour wane ko mais aussi tànku ànd ak euh, mbooleem ñi ngi fi nekk ñëpp ci mener un combat universel souvent damay faral diko wax né lu jëm ci jàng xam-xam lu jëm ci wérgu yaram ak lu jëm ci environnement ça c'est des combats universels dafa romb affaire affaire xeet affaire askan affaire parti politique affaire génération c'est des combats universels ñëpp ko wara def tout le temps et partout et euh, bokku na samay tank tay pour ñew pour pour consolider lolu mais pour wax ñëpp aussi jërëjëf parce que aussi les lu lu neex ci xol la ñëpp bàyyi seen ay soxla xey tay ñew ak ñun pour nettoyer plage bi bo xam plage bi plage Ngor la nek mais c'est tout le monde qui l'utilise hein été bi ñëpp Ngor la ñew donc pour leur dire merci au nom de tout le monde de toutes les personnes qui fréquentent cette plage Je m'appelle Fatou Barou. Je suis American Species Program Coordinator au sein de l'ambassade des États-Unis. Moi, je suis là avec ma fille. Euh, voilà, on a essayé de mobiliser comme on a pu parce qu'au-delà même de l'aspect de la présence physique, euh, il y a aussi l'aspect sensibilisation. Et je pense que c'est important d'essayer d'inculquer ces valeurs-là aux enfants. Auparavant, je venais à Angor et j'avoue que j'étais un peu, euh, voilà, j'étais un peu refroidie par par la saleté environnante. Donc je trouve que c'est euh, particulièrement pertinent pour Khadim et son équipe euh, d'avoir pris cette initiative-là et de l'avoir portée jusque-là. Et je vois euh, un peu l'avant et l'après. C'est toujours en cours, on n'a pas fini, mais on, voilà, la différence est vraiment palpable. Nous, beaucoup ci association bi waxuma la Sénégal parce que xam nga léegi le monde là, dañuy wax village planétaire Nous am na sax fi pour nous kon ñun

dama ne dañuy defar Sénégal ba joxe exemple yeneen dëkk Afrique yëpp soow jant fii mooy soow jant fii mooy soow jant fii la war a lépp war a leere fii war a lépp war a tàmmalee ñun foofu lañ jëm Sénégal littoral bi la ñuy topp mais dañuy dañuy romb Sénégal parce que am na Gambien yi fi nekk am na Gabonais yi fi nekk am na ñeen ñi fi nekk ñun bu ñu jàppalee lii modèle la booy modèle la booy lay nekk boo xam day répondre le monde entier dañuy répondre ñun ci environnement suñu suñu réponse la ñuy apporter ñun Sénégal ci loolu Ah, mairie bi en fait euh, lépp li nga nous ne ñoom surtout woon nañ ko ci ñun lépp def nañ ko parce que faut comprendre que ni en fait lii c'est un combat citoyen donc du coup en fait mairie bi amul sax lu melni jappelé ci lu jëm ci yenn mbir yi. c'est plus euh, dañu soxla bu dee lu jëm ci wàllu administratif pour la consolidation ay courrier ay demandes yu ñu war a def que la mairie les accompagne pour dire qu'effectivement ils organiser les ils sont ils sont en rapport avec la mairie donc képp ku leen war a jàppale jàppal ne la mairie cautionne et crédite derrière li ci des c'est de petites choses ah nañ fexe équiper leen nañ andi matériel nañ andi ndox nañ andi mbir Euh, donc le, ak yeneen yi nga xam mairie maire bi war na mairie taxawee maire bi taxawee et ça vraiment je profite ci lii pour remercier vraiment initiateurs nous mën Khadim ak Ablaye vraiment les inciter les les remercier mais remercier également mbolam ñi ci andal cadre de vie euh, SONAGED yenen association yi nga xamné and ak mouvement yi ak GIE ñeu and ak ñom pour défa ko vraiment je les je les remercie maire bi mom vraiment amna na on continue à soutenir des initiatives comme ça parce que l'objectif pour ñun moi, que toute bonne initiative est à prendre et à accompagner donc euh, euh, bii on espère à ma initiative yu dans le sport par exemple on peut l'avoir dans l'éducation on peut dans tout toutes les bonnes initiatives la mairie est preneur et on accompagne sunu sunu sunu dëkkandooy sunu mbokk yi sunu xarit yi mënuñu tey ñun sonn nettoyer ba mu set et que suba ñu tilimalaat amul sens donc ça le message que je lance moi le voisinage direct ñi xam ne ñoo gën a jege que bu nous nettoyé ba mu set ils seront les premiers bénéficiaires parce que dina gën a rafetal vue bi dina gën a espace bi donc ñoom aussi qu'ils se qu'ils s'autosaisissent quest ku qu'on a malade suba ñu ne la maintenant li war maire bi nag mooy peut-être les gens diront que ni aw ma woon fu ma ça sama maladie. moo tax ma tu ko ci bi tout ça et que la mairie out ay dispositif yu doy ak équipement pour mettre à la place pour que nit yi mën ko et ça incha on va s'y atteler parce que bëgg nañ euh, au mois de juin journée mondiale de l'environnement vraiment nous organisons un bu où on va inviter toute la population de toutes les entreprises qui sont là Nous inviter les inviter aussi inviter association mignon ñu ñëw nettoyer et on met un dispositif et on fait on fera le suivi on a la chance d'avoir une mairie très jeune donc du coup au-delà de wax courrier tout ça on est jeune donc il y a nañ encore donc et c'est pour moi en fait le meilleur exemple c'est l'exemple par l'action c'est pas nga wax mais je pense que il faut faire par l'action et même pour suñu rakk que ce qu'on dit en fait learning euh, euh, learning by doing dafay am solo pour suñu rakk yi ñu gis ñun ñëpp ñu ànd que ça ku sànni ku tilimal ñu la foral ça c'est important et on va continuer je pense que Réumi mu ngi gëna rajeunir ci fànn yépp. donc euh, rajeunissement bobu nak dafa wara a ci action yi waru yam rek ci wax parce que peut-être la chance qu'on a amna ñu fi néwon ay mak lañ peut-être mën nous mais mais nous aujourd'hui ci Il y a des jeunes qui sont là-bas donc nous Nous ba Nous mën ah, fonction on se retrouve les après ñu là. ci terrain parce que vous parlez aussi pour ñun la pour population pour la et j'en profite j'invite tous les maires ah, le maire de Yoff notamment, le maire de Wakam qui est jeune, le maire des Parcelles sénie tous les maires de Dakar, et notamment le maire de la ville de Dakar, Barthélémy Diaz, qui est jeune aussi, avec le président de la République, Mom il est jeune, le premier ministre, il est jeune, les ministres, ils sont jeunes. J'invite tout le monde à ce qu'ils mettent la main à la pâte, que si vous def set setal de l'environnement que ñëpp wàcc ci terrain bi oh au le changement je pense que c'est par l'action c'est c'est au-delà même des discours c'est par l'action et je pense que dina am sax nag amna ci parce que le président de la République comme ci campagne bi balé la yoron xamna naa balé bi newul pour campagne rek c'était vraiment objectif setal je pense qu'il va il va aller au-delà de ça et je sais que le premier ministre également il a lancé Brock à il a wàcc na ci caniveau nettoyé donc vous voyez que ñi ci ils ont montré l'exemple. je pense que ñeneen ñi ils ont obligation de suivre et puis c'est pour la bonne cause aussi hein, vraiment donc euh, ñi ngi leen di féliciter di leen remercier di euh, am sur ci Wanel TV bu baax di ci am contenté di def un grand coucou sunu sunu grand sunu nos Khalifa vraiment et euh, dire InshaAllah que le bon Dieu l'accompagne. et vous accompagne également et di wax merci. di wax eh, mbooleem kuy ñëw ngor jàpp ci bis bi tey ñu lay wax jërëjëf ci turu waa ngor yëpp di leen di leen gërëm application Wanel TV ak Sina Google Play mën ngeen télécharger léegi léegi.